来啦！ togg ndékki tey waaw togg nañ ndékki joxe nañ ko ñu gaay ñëpp barkeelu nañ ci barkeel sëñ Fallou waaw ndékki doy fii mooy waañ maam Lam Fall BMD waa kër sëñ Abdou Karim màggal gi neex na trop neex na trop maag sama doomu ndey bee ñoo nekkoon si waañ bi ñëwal nii waaye màggal gi neex na trop dund nañ ko fanaanee xoolee waaye ñëpp lekk nañ ba suur loolu lañ si jublu woon alhamdulilah. looy wax ah, xanaa na ñëpp góorlu rek lu waay def rek sa bopp màggal moom màggalu sëñ Bàmba gi lu ci waay def da ngay yokk lu ci li def benn fii ak déwén yàlla na nga ci ful suñ borom yokk la ba nga yëg ka waaw na ñëpp góorlu rek ñu ngi seen ginnaaw rek ñun dañuy jéem rek mënaguñu ngeen ñaanal ñu ñu mën. ah. waa sëñ bi ñu ngi lay siyaar di la jox sa wàccuwaay di amaan mbégte rek ci màggalu sëñ Bamba gi ngir dara mënuñoo bégal lu dul màggalu sëñ Bamba gi bañ ma laajee lu ma gën a neex ci àdduna la ma ne weeru màggal su jubsee ci laay gën a kontaan di yëg suñu borom di yëg Serigne Touba te xam ne Serigne Touba rek a fi ne moom mii nag dañ koy seedeel ni jàmbaare sëñ Abdou Karim la ak Jaay Faal yi mboolem ñu fi taxaw ndax xam naa ne su màggal jotee ñu bàyyi seen liggéey tëj seen i seen i nek ci ndigmal Serigne Touba kon nak lu mën rek yàlla nañ ko mën dewel ay jambar serigne Abdou Karim lañ ay gaynde serigne Abdou Karim lañ kon nak ñi ngi ñaanal ñep ñun mom dañu xeebu lool ñom ñi ngi seen ginnaw da ñi ngi seen ginnaw waye amuñu lu dul mbégte serigne Touba ñun amuñu lu serigne Touba kon kontaan nañ bu baax barké mom Cheikh rafal amaan mbégte bu baaxa baax di ñaanal ñep jamm yalla ñep am jamm barké mom Cheikh Fall ko bëgg jaar param sëñ bi ma man <laughs> li may ñaan daal mooy lu ci jëf rek yàlla na la ko sëñ Fallou fuyal barki sëñ Fallou ca kaw ca kanam ci lu baax baax na jërëjëf.

mooy suñu papa mooy suñu nijaay mooy suñu lépp du suñu digganteek moom du taalibe ak euh, sëriñam suñu papa la suñu nijaay la suñu lépp la waaw ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax a baax mu yàgg fi lool te wér Mbàkke waaw mhm. bu ñu fekk la si waan bi yow noonu lañ tuddee nekk si waantaay bi ah kontaan rek ci bis bi bis mhm. sëñ Tuuba moom ñàkk jëriñu rek mhm. comme ni ko ñëpp waxee rek comme ni ko sama rakk waxee ñun waa kër Ndeye Wade lañ ñu nekkal fi yaay Mbacke nekk si waañ bi rek fas yéene liggéey ñaxtu jëriñu ñun suñu kër la nekk nekkuñ suñu kër sëriñ suñu biir kër la kon dañuy liggéey ba dee dóor waar rek ñu ñaanal yaay Mbacke yàlla na fi yàgg lool tuwér moom njabootam yëpp ak suñu sëriñ bu baax boobu sëñ Abdou Karim Mbacke di ko ñaanal bépp membre boo xam ne yaa ngi fii di liggéey di daan sa doole si naaj bi tàng bi. yéen bàyyi leen fi chaque année ngeen ñëw ñu jox seen micro yi ñuy wax. ñu leen di ñaanal bu wér a wér a wér a sant rek. lii ay pigeon la lii ay année moom la ñuy saaf saafal sëñ bi lii nag moo gën a ndaw si baax baax yi lii lii moo ci gën a ndaw muy pigeon yi chaque année ñoo koy def di ko def di ko fekkee dañ koy def rek ba am 100 ñu ñuy tegal siis ñu ñëw di ko def. parce que ginaar ba si gëlëm la suñ bi waxoon. waaw yéen la gëlëm ba si picc pitax. waaw yéen picc ngeen commencé. <laughs> ñun picc lañ commencé. picc nag yaa ngi lañ commencé picc. macha allah macha allah. sëriñ bi daal dañ ko fi ñaanal rek mu yàgg fi lool te wér. yàlla na fi yàgg te wér. ñaanal sëñ Abdou Karim mu yàgg fi lool te wér ak yaay Mbacke ak njabootam ak waa daayira bi yëpp ak waa Makaarimu ak la président Mamadou Seck. sëñ Touba seen ak bépp membre boo xam ne ni yaa ngi ci daayira Makarimal Akhlaq ñun sëñ bi moo ñu nàmpale Makarimal Akhlaq kon moom ñun loolu la ñu dund ñun instant yi loolu la ñu dund moo nekk si suñu xol ñun ñëwuñu pour ñëw toog si lal yi di xool yi neex yi ñun dañu ñëw pour ñàkk jëriñu sonn nekk ci naaj bu tàng bi waaw loolu moo ñu moo ñu tax a jóg waaw liggéeyal sëriñ bi rek ba suñuy sataat ñëw di liggéey yokku ba yëg Para! Para! Para! ah bëgg rek suñu màggal baay bi ak maam bëgg rek bëgg si suñu sëriñ nga xam ne moo ñu tax a jógee ndar ba ba Touba amuñu ku dul moom moo ñu dimbali ku dul woon sëñ Abdou Karim xamuñu fu ñu jëm gis nga fi ñu fi ñu indi suñu yaay ju baax di maam Amy Mbacke ñun si xeetu baax baax yi rek ñu koy jàppale ci barki di bëggee sëñ Abdou Karim rek xam ne mënuñu ko fay bàllaay sa nunu mel mooma moonu dimbali moonu defar ba tax yaquñ ñu koy ñaanal fan wu gudd and ak wér dika ñaanal yokute ak ndam dika wax yalla nako yalla yàlla bu mu gëna lu mu dund ñun amuñu kenn mom lañu am am melunu nenn amuñu kenn sëñ abdou karim rek lañu am mom lañu gëm lu ñu way naxé ci mom bëgg nañ ndax moy suñu baay moy suñu ma moy suñu lepp ba bëgg nak si yeen lool yeen ñi nit tala radio bi ñuy wax ci suñu bay tan na ngeen am jàmm barke señ fa la ilaha illallah mamadu rasulullahi xaadimi rasulullahi Cheikh Fallo Ba afiya mu mam

ñun nag dañ fay taxawal soxna May Lahat bint Cheikh Abdoul Karim ndax day jàmbaari Cheikh Abdoul Karim soxna May Lahat Cheikh Abdoul neewu bu ma doon góor rek ba muy jigéen fépp fu góor di taxaw rek soxna May Lahat tax taxaw na fa fonk waajuram wii lool lool lool lool lool fonk borom këram bi ko suñu borom booleel muy sëriñ sëriñ Galas Kaltoom mu sëriñ Alaaji Baara Mbàkke Fall nga xamante ni day càmmiñam di borom këram su màggal jotee yitteem yëpp moy mbekté borom kërëm ak mbekté waajuram wi ñukay ñaanal nak mbacké mu yàgg fi lool te and ak wër lu mu dund rek doy ndax bu fi yàggee kat ndariñ lay doon ndax li nga gis ni yépp soxna may xat mbacké ko waral doon jambar nak jàmbaari fàq tëdd jo xamanteni ni fa kala ma sha allah sama ta sama cata morom li ci bu mag wi rek ngeen gis waye bu ngeen duggon ci wañu ndaw wi ci biir kër jox di ngeen gëna yému ndax soxna may lepp lu mu liggéey rek sëñ tuubaale la ko yéene sëñ Fallou la ko yéene bàyyam bu tedd bi di Cheikh Abdou Karim Mbacke la ko yéene te nag balay sax du fàttaliku démbam ndax ba ñuy ànd ak moom ay tout tànk lañ woon di fawee suuf ba tey ji kenn ku ci nekk yaa ngi dégg yaay ñaan nañ yàlla dégg sët ñu ñaan yàlla di ànd ak moom di ko liggéeyal di ko liggéeyal ba yor suñu bant di ci liggéey ci barke si Abdou Karim Mbacke Falilou ndax ñun moom rek lañ bëgg moom rek lañ am moom rek lañ xam bëgguñu kenn fonkuñu kenn soxna May Mbacke bintu Cheikh Abdou Karim Mbacke point moom rek lañ am wasalaam ngeen baar ma ñaan mu yàgg fi tawér di sant bàjjen di ko gërëm ndax lii lépp moom la di ko ñaana lu mu mën ren yal na ko mën déwén li mu bëgg ci ëttu baayam bii di ko liggéeyal maamam Seexul Xadim di ko liggéeyal baayam Alaaji Fallu maamam Alaaji Fallu Mbàkke di ko liggéeyal yaay Mbàkke ñu ngi koy ñaanal yal na ci daje ngërëmu Serigne Touba lépp lu mu def ci màggal gi balaa déwén yàlla na gis lu ko ëpp ci barkeb Serigne Bamba ci barkeb Serigne fallu sant nañ bu baax baax magal gi neexna ala daw me na ñëpp ñëw nañ talube yi ñew nañ ñi ngi ci liggey bi ñepp ngi ci waañ bi kenn tayelu kenn sonul ndax Cheikh Abdou Karim Mbacke kenn du and ak mom bi son sa bo mom da ngay gëna sawar da ngay gëna contane da ngay gëna be xewal yi di gëna yok ñi ngi ñak Abdou Karim Mbacke na fi yag tawel ci barke serigne fallu salaamaaleykum buñ julee yàlla tubaarkàlla macha allah màggal gi ala daw kenn du Serigne Abdou Karim Mbacke balay sëbëru Serigne Mbacke maaram tubaarkàlla macha allah lépp nee na gàññi waa ñu soxna may laxaat bii tubaarkàlla dara manqué wu ñam yi doy na lépp jaar na yoon muy liggéeyal maam bi tedd gi rek tubaarkàlla xanaa ñaan yàlla yàgg fi tëwér rek ci barke sëñ Fall yooyu yàlla saxal leen seen télé bi ci barke sëñ Fall ba ñu leen dégg feneen ci barke sëñ Fall jërëjëf alxuraan Fatima faal doy nañu ay ni la yàlla def bu ko neexul daare daare afiya faal li la li la yàlla Wow, wow. Yeah.